السالم على ما هو لق القرامة وسواه ليلة المولد التي كان لدي سرور بيومه وضحاء صل يا ربنا وسلم على ما هو لقى القرامة وصفاء Eh, ñi ma xam ñëpp xam nañ sama diggante ak Maulana Cheikh Ibrahima nias fi ma ko teg ak fépp fu ma dem ci Afrique ñu may wax waxam di ma won ñoom seen fierté seen mbégte ci xam Cheikh Ibrahima nias ba pare xam li mu bàyyi fii lu mu bàyyil julit yi lu mu bàyyil aduna bi yëpp ñëpp di ko tiitaroo man nag doomu Sénégal yàlla def ma tudd Cheikh Tidiane Euh, xam sama bopp xam sama cosaan euh, fu mu mënti dem ci Afrique ak fu mu dem ci aduna il faut que may tiitaroo Cheikh Ibrahima Niass moo ko liggéey moo ko fi bàyyi yàlla na la yàlla yokk barkeem bu xam ne ñun ñëpp mu taas ñu ci barkeem ñun ñëpp yiw bu mag bi mu fi bàyyi Sénégal muy aar Sénégal di aar Afrique yàlla nañ ci yàlla sedd jox ñu ci suñu wàll bu ma Medina Bay, nag sama xel dem ci sama mag sama xarit imam asan Cissé am na fu ñu jaar maak moom ci diplomatie am na lu bare lu ma bëggoon defal ba alxamis bi ma seetsee sama kër ñëw di ma jaalee sama wayjur bu góor bu dellu bu bu dellu woon bu génn àdduna ñu waxtaan lu bare alxamis bi ci topp man ma njëkk ñëw Medina Bay fii pour Euh, aljuma bi ci topp pour jaalee ko famille am parce que alxamis bi ci topp moom itam la génn àdduna sama mag Sayda Mariama Niass ñu amoon relation bu spécialement ak moom bu dara amee ci àdduna bi dafa daan demander audience ñëw ne ma ñaan suuma la dara du passeport du soxla dama ñëw pour xelal la yedd la moom noonu la meloon moom tamit di sama mag bu tedd gunge ñu Mauritanie maak Moustapha Niass ba ñu amee problème ak Mauritanie ñu dem toog

ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey bay du baay ji barahama am ngeen jaaraama yéen liggéey bay